masa fajul góom mais wàññi na métit waaw góor nag taxul sa poos yi am dara mais mën na def sa xol dara dina tax nit góor góorgóorlu bu yàlla dogalee am ay mbir yu fi xew man ma nekk ku jege man ma nekk ku xam ku nekk ci tiktok bi xam ma man laa wax xam ma waxuma waxuma nga xamee ma ci tiktok bi wala tamit sax bu fekkee ku xam nit nga xamee ma ci tiktok bi mën na nekk nga xam ban doomu aadama laa billaahi wallaahi watallaahi ak nodd bii am naa njàpp damaa julli tisbaar doog ñëw def live billaahi man duma ànd ak góor jigéen barke Serigne Babacar Sy barke Serigne Babacar Sy waa léegi ndax man sama bopp ma gënal Wally ndax Wally moo ma gënal sama bopp man te nga yàgg a dégg ma ni man man duma maral kenn man duma sibooru kenn man duma waxal kenn lu ma gëmul loolu def naa yàgg nga ko dégg ci man ci live lay waxee wali bu yeewoo mu ci live bi bu yem ci live bi di setan tan sama live lay wër loolu yalla dogal man bañu ma nga critiquer bañu ma ko de bañu ma nga def say analyse mais nak dama bëgg ñukoy rafetal ta xamni yow doomu jamur nga bayu jamur nga wala ndayu jamur wali sek bayu jamur la te Wally ay doomam ñu ngi commencé màgg ñu ngi commencé xam par la grâce de waxuma loolu de tiset bi nee naa la waxam daa war a paase xam nga lu tax juum na sol na ko luy am am na ci après jégul na n'est-ce soxna mako ko mu jël sol bo fek ken xamul lan moy drapo man drapo bi sama ak alxuraan ñen ñi ñen ñi ñen ñi ñen ñi tuddé seen bop xawma ma diko xawma yaq ma ñom ñoo tax ma xamé drapo lesbienne xawma ma lesbienne xaw ma homosexuel ama homosexualité mo bi sax yalla moko mën bëgguma ko mën nga dégg barki démb benn gaañ rappeur xaw ma nan xaq ne Wally Seck ba muy def déclaration bi ñimawul tudd homosexualité te Wally Seck dem ba France waxee ko seen télé Karim xaq del xool yàlla ci li ngay wax gis nga bañ nit ki bum tax nga koy tumal gis nga bañ nit ki bum tax nga koy sosal gis nga bëgg buzz bum tax ngay fen fen baaxul nga ni ba muy def ba def discours ñima ñimewu koo tudd mu dem ba France toog ak journaliste télé international tudd ko fa Karim bayil sos yàqal nit ki wala bëggoo nit ki am nga droit bañ a bëgg nit ki am nga ci droit am nga ci droit laa wax mais nag tamit nga bañ a fen ndax fu mu toll maa ngi gis ci tiktok bi ñu ngi lay vaar yow fu mu toll sa crédibilité maanaam succès bi nga amoon lépp ngi commencé wàññeeku ndax ay fen yu taxawul fen ndax ay sos yu taxawul fen sama digganteeg Seydina Mouhamed laa wax billaahi wallaahi barke Serigne Babacar si Wally Seck jullit la góor yàlla la Baay Faal la <laughs> non ku xamul xamul rek c'est que boo xamul rek xamul mais boo dëkkoon ak Wally wala nga jege Wally di xam ni Wally góor yàlla tigi la bugguma exagérer ndax man lu coow li bari bari bari damay dal duma tax a exagérer fan yi yëpp yaa ngi gis nit ñi ngi defi vidéo fan yi yëpp man ba may def video boobu fekk Wally sax deful vidéo parce que man xam naa cause bi may défendre duma ci am gàcce ci àdduna man balaa maa wax dara ñaata doomu aadama nga gis ñu def seeni analyse yu ma jàpp ni man danoo dafa pertinent man ngaamuma ci tontuwuma leen parce que nag dëgg moom neexul ci boo ko bëgguta dégg mais boo ko bëggee dégg neex na nee naa la defal say analyse waali sa mag la wala sa rakk la sa cousin la wala sa wala sa wala sa cousine la wala wala wala wala yaa xam yow côté bi nga bi la waali féete wala bi nga féete waali am nga droit en tant que ku nekk ci TikTok bi wala ku sur ci réseaux sociaux yi nga conseillé ko ndax xam-xam pour bu bourrer la ku ne mën nako koo for mais mon droit diko ko accu accuser mon droit diko accuser parce que li ngay wax wóoru la Néna la nee naa la sax bi déglu ma attentivement doomu aadama kenn du ko nattee ci colin doomu aadama kenn du ko nattee ci colin xoolal sunu maam yi nan daan solo ak léegi suñu bàyyi ni ñuy solo doomu aadama kenn du ko nattee ci doomu aadama kenn du ko nattee ci takkaay même waxin des fois kenn du ci natt doomu aadama cheikh bi doomu aadama ëpp na loolu te balaa ngay yëkkati benn moo bi muy lu baax muy lu bon di ko wax ci doomu aadama bi bàyyil ba def ay gëstu cheikh bi le mot góor jigéen ku ci nekk ci ñun ñëpp laa wax natt ko ci sa bopp rekk mani amul kenn kenn kenn ku dul def loo xamante ni yëfu jigéen la ci ñun ñëpp nag laa wax amu ci nee naa la boo sangoo di nga woddu <coughs> boo amee jabar des des fois nga kaf moom def def ay détails mu wax la benn affaire nga koy toppandoo boo amee gel gel bu dëgër même chose booy toppandoo fecc même chose te taxulaa doon loolu nee naa la colin jëfin duñ ci natt nit cer bi wala yow déggoo ma kenn du ci natt nit bugguma nit ñi di juum man bañuma kenn du ci natt nit bi mu dee waali ba tey benn festival la mos a benn benn festival ci ku bokk ci lu bi ce que loolu xel nangu na ko lan moo ko tee am disque d'or wala disque platine wala wala walla wala walla raaya yi mu am yëpp fii lañ ko ko joxee Sénégal ay meilleur clip ay meilleur artiste ay ay ay ay ay ay fii Sénégal fii kon booy wax ci nit ki bañu ma nga wax ci nit ki de bañu ma ko de parce que nak nee la lu defu di waxu lu ay di jambat mais noko wara war noko wara noko wara jambaté sama cheikh yi ma ngi leen di rakku jambour man nee la ciowli lu mu bari bari bari bari sama xel lay démé duma démé sama xol waxi lu mu metti metti metti metti sama xel lay démé duma demee sama xol te noonu laa bëgg nga doxalee ko yow yow miy saaga noonu laa bëgg nee naa la nee naa la bu yàlla dogalee nga def sa bopp saagakat di am ay vie yu bari ay vie yu kasara la nee naa la man boo ma dégloo dégg barki Sëriñ Babacar Si ndax nee naa lu may wax dama koy teg ci xel ak xalaat segg ko nga mën koo jëfandikoo mu jariñ la mais ay saaga ku ne xam na ni segguñu ko boo ko jëfandikoo mun laa jariñ dalay lor man duma saaga duma vulgaire duma wili pande te nag nee la nee la man Ndiaye Rambo laa tudd am na ñu bari ci TikTok bi xam nan ma avant TikTok man maa jiitu TikTok maa jiitu réseaux sociaux man nee naa la ba may xew benn télé moo fi nekk muy RTS 1 nee naa la émission bi gënoon dox lan ma invité woon muy midi première antenne midi ak Maurice Ambroise Gomis télé bu dul télé jinne ci Europe génn naa fa fu ne taf nan ma fa poster man ba may siiw Wally siiwul maa ko mag sama rakk la kon duma ko waxal man lu may xeere man eh sama bopp ma la gënal du bañ naa la man sama bopp ma gënal lu ma am nee naa la eh man boo ma diggee milliard ki Serigne Babacar boo ma diggee milliard di ma may milliard ci fulla